suratul hadid saaru weñ bi ñuul mat yëgum ko jël makka la aw ma dëgg yëgum ci sama ko jël nañ naan samaanun juróom ñett la mu waxe doona ñaar fukka aaran ci kaabir bismillahi sasna wax sama ci tudd tudd góor rahmaani ka daaji xéewal mi neef mar mi laa ko sëpp yaat yaara yi mi ka daaji xéewal mi laa jaalaakara sabba sellal na lillaahi yàlla maa fi sama waat na ci asamaan juróom yaar wala lekk lu juróom yaar lépp lu nekk asamaan ak suuf li ñuy sabba yàlla mu neex ko mu naqari ko amaa ñu gëm yàlla ñoom ñu ngi sabal yàlla taw xam wedd yàlla it seen loxo ñu sabal yàlla bañ bañ woowa moom alal si moo di aji mat nguuram ala ci moom rek dara ci juróom yaar wala rek dana mu dundal fu mu nan ma dundal wayu mi tamuy ray rek moo dundal nit ki ba mu ko sotee moo koy ray bu digam jeexee woowu moom xadirun aji attan la mu ala kulli shay'in ci lépp def yàlla moom mën na lu nekk def dara lëttalu ko woo yàlla lawalu moom a di aji njëkk de njëkk lépp lépp parce que dara ñëwut yàlla rek a fi newoon de te yàlla moom amut a tàmbaliku suñu yëm asali yi la naka jëkk moo fi nekk mës a dañ wala axiru di aji mujj de yàlla mujj yëf yëpp su jeexee yàlla rek fi def def loo xam ne amul dayo ak xamam ak ñàkk musu ko jiitu de ak xamam ak ñàkk lu ko mujj di mukk de ku te kudul moom kudul moom soo xamee am na jamono yu maamu doon li ñuy séntu jamono yoo am na dana ñàkk lu mooy yàlla rek wa baaxiru yàlla mooy aji feeñ kii kenn dina ci tegtal moo gën a feeñ sax tegtali yàlla feeñ ndax dara nekkul ci kawam sàng ko dañu seen maxa rek kon baatinu moom a di aji nëbbu moo feeñ moo nëbbu ndax lu dul moom nekku fa yooyu laa saxal wéet ak yàlla wéet bëgg yàlla yépp di wut buñ xamee melo yooyu rek daal di xam ko yàlla rek alim maa ji xam la woon bi ci lépp lépp yàlla xam na lépp lépp nag moo njëkk moo mujj moo feeñ moo nëbbu te laayar ñu gis te fatte jumla yëpp mu mubtada bi maarifa xabar bi maarifa maa fi mu loolu ak sakk lay njëriñ la bu boobu maarifa la lawal maarifa la li ci xaatam yëpp maarifa lañ bu ne mooy lawal wax na ne kenn du lawal mooy moom de laaxiru noonu zaahiru noonu baatinu noonu moom fadduut boob yow yaa rek toskare sa bon boo moom la fii mooy buur bi xam ne alxam dina mu sama waati asamaan juróom yaar wala laa juróom yaar ci yàlla moo bind àddina fii dale ci bésab dibeer ñam ci bésab àjjuma ma mu jublu ah, arasam jublu ko nga xam ne mooy yàlla maanaam not na aras not na aras lu mu tekki aras a gën a màgg ci mboolem ñu bind su fekkee wax na not na ko lu dul moom waxi noppi loolu mooy li ci waaw bi wala dugu rahman moo def li ci waaw ci xaraf mboolem bi ñu ñu yërëm yëpp ci ron xaraf lañ nekk kon nag melaw yàlla li xam ne moo di yërëm ci xaraf la wàcc de ndax li dara xaraf jëm suuf ñoo soxla yërmande yàlla mu dara mu xam maa yàlla ji la dara mu xaraf fi lar ci suuf yàlla lépp lu tàbbi ci suuf muy taw muy niiw buñ ci denc yàlla xam na ko wama yàlla jaale dana mu génn ñu naat ci suuf gàncax bu sax ak ngàll yi ne ci suuf lépp yàlla xam na fu nekk wama yàlla jaale dana mu wàcc na sama ay tukkee ci asamaan lépp lu wàcc bàyyi ko ci asamaan ci yërmande yàlla ak mbugal yàlla xam na ko wama yàlla jaale dana mu xéer ci asamaan lépp lu xéer ci asamaan muy jëf ji yi jëf muy ñaawte yi jëf lépp yàlla xam na ko woo moom maakum aji naka la mu ànd ak yéen yàlla ngi ànd ak yéen ay na maa kuntum sa fu ngeen nekk fu ngeen nekk yàlla nga fa nekk yéen kooku neexut a nëbbu bu la wax dina lu mu teree mën ngaa faddu def ko te du ko gis wala du ko dégg kii nag moom foo ne mën fa nekk yow. wa maa yàlla jëlaat gën a mu xëy te ci asamaan lépp lu yëg ci asamaan muy jëf ji muy jaanu jëf muy ñaata ji jëf lépp yàlla xam na ko. woo moom maakum aji naka la mu ànd ak yéen yàlla ngi ànd ak yéen ay na maakum tum sa fu ngeen nekk. fu ngeen nàcc di allah an nekk ak yéen kooku neexut a nëbbu bu la waxee lu mu tere mën ngaa fàddu def ko te du ko gis wala du ko dégg kii nag moom foo ne mën nga nekk ak yow wala yàlla fàttirul ay gis la mu naan tam maa ngi leen di def ko lépp looy def yàlla fay gis ne moo tax ku ko def mu gën a xeebu ci ñi ngay nëbbu de sooy def ñaaw teef da nga koy nëbbu sa kem kattan am na ñoo xam ne. bëgguloo mukk ñu xamal la genn ñaaw teew wala ci yàlla de te moom mën na koo réer moo tax dana xale ni jigéen boo xam ne ci jaam yàlla yi la bokkoon benn waaye mas man koo sakku mu ne ko tëjal buntu yëpp ba bu ñu kenn mu daal di tëj buntu yëpp a desul ah mu ne ko def na ñaari buntu foofu nga tëj mu ne ban ak ban mu ne ko bi dox sama diggante yow ak bi dox suñu diggante yàlla na nga tëj buntu bi dox suñu diggante yàlla yow ñu yàlla gis ah maa yooyu itam luñ def ñun ñaar ñëpp bokk nañ ko gis man nag tey kenn nag ñuy gis daal du ma def li ngay wax te soo ko def ndax yàlla ngay gis lu nekk ba pour jamono yàlla du mu dem na delloo loolu ñu ne ko mulku samaawaati asamaan juróom yaa wala rek suuf juróom yaa ba pour jamono yàlla delloo lu mu waroon bi dee delloo ay jëm ci yàlla moom moom asamaan ak suuf seen bit yëpp. te lay delloo de bu keroog rek ñu ko doon xëccoo moom danañ ko baax moom loolu ñu dana mu xarfe lay def guddi bi naari ci bëccëg loolu jikki yi wàññi jikki dana mu xarfe naara bëccëg ci guddi guddi ku ci saa yaar la bëccëg ku ci dana wàññi ñetti saa ci guddi doon ba ci bëccëg bëccëg bi ku ci saa juróom guddi bi juróom ñeneen ci saa yi tan mu delloo aar ba ñam bu ñu ci nekk nekk fukk ñaar mu fab fukki saa ñaar ci bëccëg dolli ko ci guddi yàlla ñu mën a def loolu te xaaj bi bokkoon guddi mu dolli ko ci bëccëg mën ngaa muus ba xam ba ci mën naa dekkal ku dee rek moom alimu aji xam na mu gisaat bi la ni ci xol yi te yàlla ñu jëkki xam sax li nga def ak li nga wax li nga fas ci sa xol ak la nga bóotal xam ne kenn xamu ko yàlla moom xam na loolu rek am loo dëggal leen bilaay ci yàlla wa rasuuli ak ab yonentam gëm leen yàlla ak ab yonentam te sax leen ci gëm wa anfiqoo sadaqa leen bima jaalakum te la leen musta'rafiina ngeen ñu wutal fii ci moom te alal yi àddina moom lépp képp ku ci moom dara yàlla la yàlla la def rek nga xalifa am ca loola waaye moom ci dëgg-dëgg yow na buutu nga ko jaaral ci rek ci coobareem konoon bu la ne sabaxeel sabaxeel waaye moo ko moom ba dëkk na ñaaña amoo gëm nañu min kum ci yéen waa am ko dañ na sama sama lim naa la wum ñu am leen ak juróom yool kabir mu bu dee aji màgg rek li nga wàcc sa xaret tamboo parce que lu mu yóbbale xare ba te fanweer yi dina leen ci soxlaal benn tamar ma sax yonent amu ko pour jox ko xare bi ñu yóbbaloo mu ne ko yóbbal xare bii gàddul naa la aljana dinaa Usmaan ne yóbbal naa junne gëlëm yu sa yu sa burobadiir yoo xam gëlëm yu sa yu góor ak seeni laltak ak seeni yoo xam naa junneeri bi la sotti li bi ci kanam yonent yonent bi xam li bi dooree di ko jéeri naa walaay maa bara wax maa maa baala baagal yomb maa jëf dootu ko lor gannaaw man gërëm naa ko léegi nañ ko gërëm Ousmane moomu la laay ñu tagg ne waaye ñu la am ne saba xelañ am nañu wax maa nga fa yàlla de wa maa laakum ana doon ngeen laa tu'minuuna ba dëggalu leen billaay ci yàlla wa rasuulu te yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wookum dana mu woo leen di tu'minuuna ngir na ngeen gëm bi rabbikum ci borom seen waxa daa xamal te jàpp mu moom borom bi nii sax suñ ko tere seen te yow ma araftu bi rabbikum lu tax bu ngeen gëm yàlla te yàlla yónni na leen leen ab yonent bu tagg leen yonent yàlla Muhammad ma di leen woo ci yow ma ala kubra bi ci yéen ñëpp noonu ngeen ana fu ngeen di mbaa ma ngeen di mën a def nag ba yéen di aar yéen ko gëm gëm nekk yéen moom ne di way gëm woo moom boo alladhi mooy buur bi nga xam ne yu la si lu gënam wàcce ala bi ci jaamam ci Muhammad ayatina alquran ayatina laa bayyinaatin di way jubli yoo ko jokkum gën mu génn leen mina zulumaati ci gën ci kéefal yéen noor jëm ci gëm yàlla way na laa naka yàlla la rawahum aji ñëwet lamu rahim aji yaram lamu bikum ci yéen jaam yi rek wa ma lakum ana ala tunfiqu ba sadaqati leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla moom na ngeen di def ba du ngeen sadaqa ci yoonu yàlla mooy laay saa ji nekk la ñaari yàlla miraasu samawaati doon na asamaan juróom yaar wala nekk yu juróom yaar fexe leen seen yëf bu leen sadaqa lu ngeen mën a def danaa leen way yéen ñëpp ba ngeen dee ma doon leen rek kon nag yi matu ko de laa yastawi ñemoo fit minkum ci yéen man am baqata sadaqatahu min qabil fari ci njëkk fatu màggat la waxaata la wulaay ka ñaare gaay ah xamu ñoo ñoo gën a màgg daraja tam ci daraja de mais dinañ ci ñaaña am fa koo dundee nañu min baalu ca gannaaw la xaatu ba seen xale ñi nga xam ne àndoon nañu yonent ba ci jamono gën a xale dundale seen alal lu jiitu fa lu màgg ñoo ñoo ëpp daraja kurut ñoom de am dañ ñëpp gëm yàlla gannaaw ga itam te dundale seen alal itam am nañ yool wa kullan képp ci ñaari kuréel yi waaw laaw dana na ko yàlla alfa sa aljana de ñëpp aljana lañ jam naa waaye ñu njëkk ñaa gën a wala yàlla xam naa ji xam na moom dinaa tàmbaloon seen dëgg jëfkat dana leen ko fay def man mu lebal laa la xaw san lebal parce que bu dee ak yërëbal pour que ma wax ana koy lebal yàlla lebal bu rafet mooy sadaka alalam yàlla su gënal sadak leb lu tax nit su ñëwee may ma nga may ko ko doo séntu ne dana la fay waaye soo leen lebal mën nga lebal ko dana la wóor ne mi ngi laa naan ba dana la fay moo tax yàlla tuddee sadax leb ba mu wóor ne dana la fay ana koy lebal yàlla nag lebal bu rafet mooy nga sadaxe ba ñu sa tey ak bakkan ko jàpp ne loo perte la gëm yàlla rek tax nga génne ko ummati yàlla dolli sama xeet mu ne masalu la ñoom def ko am waaloon fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin nga xam ne benn la juróom ñaar téeméer la lañ ko fee yonent na allahumma sil ummati ne yàlla dolli sama xeet rek mu ne man doon nañu yokk laa xarfan hasanan ko yóbbaale xooloo abaafan kasiratan abaafan kasiratan moom ëpp na juróom ñaar téeméer yonent na ba tey allahumma sil ummati de. mu ne innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri hisaabin muñ kat ya yàlla dana leen fay fay boo xam ne ah, amul lim de yonent sax wax ne gërëm naa wala woon ñaan na ko ma aji sadaka am rek yooyu ajron yoo karim bu dee aji tedd fa boromam de yool bu tedd alaxira rek lay am addina lu yëpp yàlla mën a may may ndax dana ko laxas ci sabab wala mu jaarale ko ci beneen loxo mu ñëw ci yow teddu alaxira nag yàlla fa lay mayal boppam de may nga bàyyi ko ci moom kenn jaaru ko kenn mënu laa ñaax lu ma yàlla mu tedd mi rek moo la ko jox moo tax maye alaxira rek moo moo tedd uskur jàngatal yow ma taraa bés ba da nga gis al mu'minina way gëm ñu góor wal mu'minate way gëm ñu jigéen yasan dana nox dana dox nuuruhum leer seen bay na ay diin ca kanam seen pencam yàlla ba nga xamee ne ña nga fan nga jaama ñuy jaar ci kaw siraat wëñ la goo ne moo gën a sew ci ngóor gën a jaan gën a ñëw jaasi te na juróom-ñaari pom pom bu ne ndoxam waaw juróom-ñaari junne ci yàlla te ku ne dana ca jaar foog a dem aljana jullit ñi ñoom ci ci jaar ci kiraar seen gëm yàlla ga dafay soppeeku leer nday joor ak càmmooy euh, buñ di fay safara sa leer gaa ngi fay sama safara bi wala ay maa ngi ñëwaat ci rajo Jokalante ñu naan leen Moussa Kouma dëgg dëgg seen xaar yow ma tey jaraaf yi toolam te bii dina daw ñu tàtte ak ñu si jamono ak yoon ñu naan saa yu dina nit mu ñëwee gerte ak ci gëj daal jana saa yu tënul yow moom wàllu foofu moom it ca xaaral fi mu gën a ba dana wax al munaafiq wala munaafiq yu góor wala munaafiq ak munaafiq yu jigéen yi des na ñaan ñaan amunoo gëm nañu kum turoona seen leen jëm ci nun kat ndax tamit lu jumu li noorikum ci leer seen boo xamee ne teg nañ ca ci kaw jaanama te muy lëndëm te te wëñ la boo xam ne gën a sew sunkóor gën a yëngatu jaan gën a ñaw jaabi julli ñu am seen leeral leen di leeral la ci kaw siraat de seeni tànk du mooy siraat de yéefari ñoom buñ bëggee dëgg rek ci lëndëm googu foofu la ñu daanoo ci safara naafeq yi nag waxoon nañ laa ilaaha illallaah Muhammad rasuulullaah di jullee doom ñu dëgg mu ñàlla yàlla it fay de bañ fekkee siyaar rek ñoom ñoom leer na te jullit ñi ba tegu ci kaw siraat ba nekk ci digg ba seen leeree fay ñu naa jullit ñi ah jeexu leen kat ñun kat suñu leer fay na jeexu leen ñu naa ñu leerlu ci seen leer bi ndax tamit muy leerlu min warikum ci leer seen ila waxee irji'u dellu leen waraakum ca gannaaw seen ci àdduna parce que tamit fàttu leen moo xam leer dellu leen ci àdduna wuti leer kat leer ci kaw sa adduna rek lañ koy fàggoo wa duribat al-adhaaru baynahum digganteem bi suurin ci Qatar banaa jël dañuy wax nag jël leen ñu kat ñun suñu leer fay na ñu daal di def tasa ci seen diggante jiw yi ñu wax ak ci sa puissance bi ñu ñëwaat loolu ñaan na ko baawul bunt baatin woo bii dem bii àjjana la ci moom rahmatu yërmande kafe joo xam ne te biir yërmaane fa nekk ñeel julli ñi mooy aljanna wasaayoo bitteem kete naafeq ya li tabadi ajna tabaje wala wala mu bugal waaye bitti ba mbugal rek fa nekk yu naa doon moom dana ñu wax leen alam nakum ndax nekkul woon maakum ànd ak yéen di ñoom ñu naan doon ci àddina lu ngeen def ñu def ko léegi ngeen bëgg a dem ci ñun ayo ñu ne bale aam ah, ah, ah, walakin nakum lu fi nekk yéen fatam kum nakum ngeen am ko kuma ay bakk ja wa tarabbatum te ngeen mu ñandiku ci biir ñaari xew-xew jamono. war ko tudd. mawlaakum sa waay ngeen naan sa waay nga moom mawlaakum mooy zéro waay ngeen. wóor bi sax ba mu am na zéro zéro waay ba mu sa waay rek. alam yaa ngi kooku lu ko war a wàcc na maa xam ne bii dañoo bëri tax na. ku toog xam bëri na waaw ba ñoom ñëpp ñuy bëri ay wërëb. bu wane alam yaa ngi ndaw jotu les ñaan ñaan na amoon gëm nañu am toog temps bu wane alam yaa ngi ko loolu mooy apporté nañu si kuréel aay ñu fàttali ci yàlla. omaana balaa la wàcc na mu ne laa gis yàlla wax waa jërër ndax fàttali ñu wax kenn ci yéen jëm jëm jëm dem ci yàlla nag seen xol yi jëm ak yàlla dina ko am wala yaa ko war a ko buñ nekk kenn dina ni tam naan wutul ci kaw jox am nañ ko ñu xam jëm dëkk buñ mel ni ñoo ko dem dafa raw fa taala fa yaa naa yi ñoom la wadu diib ba fa xafa ka wax lu mu may xoofe wax ci na ay ba ñu ñoom fa ko na wajju nañu ko yàlla yàlla moo xam ne na laa ka yàlla yi gën a wutul dal la fu ba demoo moom booy yëpp saa ko doon àndal dina ma fàtte dina ma taw dafa dafa ñu góor wala ma fàtte xaaral ma dafa dafa ñu jigéen waaw xale bi ma fàtte war ma ñu naan waaw xaw ma dafa dafa ñu guddee ak yàlla yu baax def na fule ne loolu ñaar la yoon sant yàlla wala moom ñaar la yoon ak yoon yàlla xëy mu guddee ak yàlla mooy ak yàlla wala sa ñaar la amoon gëm ñu guddee ak yàlla wala su dee ak yoonam tam wala sa ñaar la jaay ku mu ñoom si biir xaw ma ñu dëgg laa ko ñëwee ko daa way sa ñi dafa ba borom لهم نعمة أجرهم يوسعهم ونورهم على يأسهم والذين كفروا يسلموا كسبوا في النار ولا يسمع جاءوا أولئك الذين إذا أخذوا بهم نارا جهنم ألم وقعهم أنما يعرف الدنيا أنهم لا يعرفون لا يكون فلا ولا يكون قرى وزنة نفسها وتباعهم أبكوك لبينكم تجمعهم وتتعاقبهم أن يقتلن في الأوائل الجديد ولا راجع بلهم دوم على من يرى لنا جاهنا بجدو فلا يكون لا يكون ما يفعل فلا يكون أمنا من دون بلهم lahu ba am juróom-ñaari at yi def lahu mooy fa moo xam ne borom am na ca bànneex ba am juróom-ñaari at bu ñu teew ak benn bu daal di bëgg taar ak tawte te ba am juróom-ñaari at jaar bu ñaar bu teew ak juróom-ñett mu daal di bëgg puukare bëgg alal bëgg ay doom de ba amati juróom-ñaari at waaw muy fanweeri at ak juróom waaw su ko defee nag fi yàlla yëpp bëgg ci moom aw jiw nag mu daal di jàpp ci moom dellu ci boromam de ndax xadis bi nga xam ne moom la leen kër kër yëpp dama tëjee xarit bu ñu koy wax kaw la ah jërëjëf loolu la ma soxla rek lay def ndax ak loolu dañ ko xam ne su ma yëyee di tax mu woo de adduna lépp lu la fi yéen mi ngi mel ni taw bu taw gàncax gi sax jëf jëf jëf jëf dina du mujj lu may woo kaw la waaye bu boobu rek daal di tàkk ko naka la maanaam lépp loo gis ci adduna rek noonu la ñu def ba taxawal ñu taal ko mu xool ngay jëfam ko su ma yëg noonu tax mu nekk mu taalam di pënë ba fi daal di jaay wax dara avant mu mu daal di tax ba ma xoolee man baanu ko waaye mu tudd fa yàlla wala waaw moom gërëm de ba ma yaatu ñu laajee dundal àdduna dinaa ma taal ko loolu laaj la ba la waxoon na leen saa yu koo gis ko woon sa yéen dinaa ma xoolee si jëm si mbaa bi nga xam ne kuntu kala borom seen wa jëm si nag aljana am waaye aayam ka am si samaay kam yaay asamaan wala way suuf de jëkkante leen jëm si mbaa yàlla jëkkante leen jëm aljana aljana dina xam ne dafa ñaara nañu asamaan suuf dana moom gën a yaa waaye loolu gën a yaa si li nga mën a gën a sëbët ñëw ñoom ñoom ñoo ñoo amoon gëm nañu bilaay jaay wala suuf yaa fi yónn tam daal di topp noonu de Abdoulaye mooy ñu ko yow tamit dama mu toog ma ne taw mu toog wala yàlla toog ak mooy borom lay ay ñu lay ma ma ataa la jot na mu nit que min musibatin ci laa la musiba de te laa di jëttoo wala ñu am ci kum bi daayam ci bakkan deenam illaa mu kitaabu ndey la mu nekk la ci téere ñun xam yaa ma xalaat yaa ko suñu ci def ko de lépp lu jot nit yaa dina ci alalam wala ci jëmmam yàlla ko dogaloon ca Adam du jiitu lu mu bëri sa yoon de la mu dogaloon nag du jaar mukk fokk maam lu mu dogalu doon dara mën na sama maam dina saa yu gërëm loolu yëpp naa ñu jàppale maa la waa yàlla de li kay yaakaaroo wax na yàlla loolu ngir mu leen jàpp allah maa faa ko kala faa ko mu leen soo amee noonu lépp loo am rek dogal yàlla la kon dara ba jàppati ci dara rek wala ko faral di ci leen ñu maa faa ko mu leen doo bëggee dara xam ne da nga xam rek waaw li yàlla euh, def rek bépp puukare laa xool bépp réew laa xool saxoon nañ ko fi puukare laa xool de ay def nañ ñoom yàq naa dara ñu naye wala na dañuy digal naa man ñëwul wax nañ ci naye wax nañ ci ñoom dëkk bu tàngee waxuñ nga tawal rek comme ni mu doon mooy yàlla na laa waaw naka yàlla xaw ma ne tawal nag ku dëdd na mu wërëf la ko waaw tey na laa naka yàlla xam xam yi moom la ay bayru xanaa ni moom la suñu sant de dafa daal xam naa ñun dañ leen a ñëw wutoo naa ay yoon yàlla yoon yi yonent yëpp ñun dañ ñu aaj ñu kaafee waaw naa ko wàcce ma amoon a mbaa ci dara ci réew mi ba bële ci réew mi wàcc yëpp yàlla ko wàcce wàcc bi daan am maanu yàlla wàcce maanu ci suuf li yàqoo ma gis na taxaw naa ko ñu doog a tuddee maanu ndax ñu ñu mën a maanu waaw xam naa tan wàcce ak xam yi dana dund mooy yàlla moo wàcce njiwu bi ci àddina tudd na ko ndax moo gën a bëri njëriñ ci àddina amul même ne moo am ne doomu aadama dana ko métier woo lu may lañ lañ ñu jumtuwaay yi ñu béyee ren bi ñu rënd see rafetal yi lañ ñu rafet ren bi ñu rënd see buur yi gànnaay yi ñu taxawal leen ngóor ren bi ñu rënd moo tax ñu yaay ñu nekk la ci ren bi ñu baaxul naa yow kaye parce que bu yaay ñu kaye bu yaay ñu tax ba maanaam dawaay yi njëriñ ñu ñu ñaan ñu de ren bi ñuul gànnaay yi ci njëriñ ñu ci ñaan ñu de moo ëpp njëriñ ci lu yàlla bindee. moo tax lu yàlla bind moo gën a yomb kenn leen ci matu xaram xarame yàlla yàlla lépp loo xam ne njëriñam jaamam dara nekk yombal lépp lu am njëriñ nag daf lu gën a am njëriñ ci àdduna mu taxam xam dem lan la mooy jaww ji ñuy noppi kenn mën da dund ci jaww ba amoon fenn saa rek suñu amul jaww ñëpp deeandoo moo tax jaww moom duñ ko jaay fenn gouvernement bu dàq dañu tas xelam dañu tas jaww ji gannaaw jaww lañ bu ñuul gis nga lañ bu ñuul jumtuwaay yi ñuy liggéey yëpp lañ bu ñuul la jëlee jëlee baykat bi jëlee jumtukaay yu mbay moo koy yombal lépp lu muy jaay toog di ngay jëndee fukki dërëm ci ren bi ñëw soo ko koy jënd dara wurus bu ne daye kon nga am lu yàlla yóbbu ren bi ñëw gannaaw ren bi ñëw ndox moo gën a ñàkk solo ci lépp lu ñu am waaye moo gën a foo lu ñu loo mos a gis moom it bu ñu ko jaayee yéen ci métier mooy seen cafaan yàlla ba mu wàcce Adama daf ko jox métier ne ko léegi leen ci métier yi moom bala ngeen ma ko man yàlla bu kenn jaay ko diine jënd ak tabax ak rab ak nguur ñooy cafaan yu métier yi mbay lu doomu Adama yàlla nañu def leen ñu mën a dund te duñ moo tax duñu war a bay duñu lekk yëpp di ci ëpp ci mbéyam nga def sabab moo ca tegu ndax doomu aadama nga nit ñi bàyyi ma ñu mën a dëkk ci jaww ji mën a dëkk ci bitti rek ci doomu aadama am déedéet comme mu am bu mu dëkkee moo tax sa wax itam ci métier lu ca tegu wax ba ndax doomu aadama mën na def yaay mu ne ñu jur gi comme mu am lu mu def ci deram moo tax wax itam di métier lu ca tegu mooy nguur ndax doomu aadama mënuñoo dëkk lu may ci mbooloo mënuñoo tasaaroo dañuy booloo ba def mbooloo def dëkk mu mën a mën a nekk mbooloo nag buñ dajee rek am ku tooñ moroomam moo tax nguur war a am nguur ku tooñ bu dimbale kañ tooñ ba mu yor a am ci métier yi ñoo ca bàyyi métier yëpp nag yéen gu ñu la ñuy dimbandikoo wala yàlla ma baaroo xam nga naqam yàlla nag man ngeen turoo kat na mu dundale ko waru tulo wax yoonam tam ba tey ci fadu dina la wax dëgg yàlla xaw naa ñu dëgg la ma ñu naa ñu naan la mu ci góoram rek wala ko yaakaar naa yoon ñu mun na wan naa wala ba ayama yu ayama wa jaanaa tam def tur yëpp ñu waat ñu njëkk seen ñu boole yoonam tëbe wa ci taw ak yéen ñu war a def comme ni mu amee naa tamit ñu ñaan seen mu tamit ak jub wa kasiru wa aji bëri minum ñoom faaw ko loolu jéem nañu ko ko yàlla def su ma ko fay naa ko ma ko fa ñoom de ala jërëjëf Ndiou naa ci yeneen dugub ba ko fay naa ko soxla dina fa dina fa ñu ma demoon dina ma demoon. gannaaw yeneen dugub yooyu yëpp yaa ngi yëngu yeneen yàlla yeneen saa rek moom mu ci gannaaw yeneen yàlla moom mos a laaj yeneen salaam waaye naa am jox ko lim jëlee lim jëlee ñu wàcce ci moom fële lim jiw wa jaay naa tam def te ko loolu dañu leen joxal ñaaña ci tabax moo topp nañ ko rafetam yërmande wala matanal yërmande wala baax yërmande affaire Sodom ak ñu sant ba leen yàlla def leen ñu ñoo xam ne ñu ci yërmande lañ dafa am ci dóor ba ne ñun ñëpp cofeel ba laa leen am leen suuf si na ci jàmm nekk ñun ñëpp nañ toppante suuf si na ko jàmm matalee ñoo topp laajte bi nga xam ne ñu ngi koy def dañu leen ci jamono nekk ci jàmm yi loolu moom yàlla wàcceewu ko ñoo ko xamal leen dox. Sodom ak sant nañ ko maa ko doon naa ko faral faral ko ay ci ñoom. yàlla mosu koo xarala si benn téere ñoom ñoo jël ñoom dara fasal ko seen bopp illaa fasal nañ ko istixaale waaye daal ñu fàttali yërmaane ngërëmal yàlla waaye nag bañ ñu fàttali woon itam bëgg yàlla gërëm leen rek xëppal moo taxoon ñu ne ñoom doon ñu dem ci jigéen ñu bañ a ko ci àdduna dañu dem rek di jaamu yàlla ba dee sama waaye amuñu ko nag après ah, yaa ngi ci àll bi dëgg itam moom laajte wu ñoo ko sant ba noppi mënuñ ko matal nag tàmmuñ ko rek kenn nekkul ci ñoom xibaar yooyu ñu wax ne catholique lañ ñëpp waxuñ dëgg catholique xibaar na nañ baa adduna ak nañ adduna te ñu ñu jëfe yàlla nañ baa xasara la xasaraane nañ baa waa kufraa la kufraane ñu bu naa topp topp dara jaar na nañ jaamu yàlla loolu waxul benn nguur ñu doxa loolu fa aatee naa tey jox ay dina ñaa nga amoon gëm nañu nañ ci ñoom te jëloon yor dem wax dëgg ay bëri ñu nañ ci ñoom parce que yàlla ña tax ñu mën ñoom ndax yàlla naa leen fay de waaye ñu ci gën a bëri ñëpp ay saay-saay de yaa yaa ñu ne ah man ñu daan ñu alquran ya jëm ñun ñu jëm Isa ci takku laa ragal leen yàlla de wala ñu doon dem benn béréb yu jëloon tamit yu maam la yóbbu ko mu jox leen ci réew ñaari yoon mu daa ah ma suñu cër maa ngi leen waaye ñan tam def nakum ña leen nooral leen tam solo ko dañu ko buñ ci moom ci kaw caaw waaye pour tam baax nakum ña leen de wala xafur naa ñu béy la mu ñeen de ka jëm rek mu naa ñeem la mu leen de def na yàlla yooyu yëpp yàlla yàlla ma gis na xam xam ci kanam ñu tawee am na tam ci leen laa doon naa tam ñoo la seen ci dara ñun tamit laaj ñu ubbu ñu xam ñu yàlla ñu moom ci dara yàlla ko moom di ko jox ko ko waaw sax la am na tam gëneel dina ci laa dina def ci loxo yàlla ñu ci dana mu jox ko ne daa mu soob de wallaahi yàlla kon tam ni mooy borom gëneel